waa ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax ci turu délégation Yewwi Askan bi nga xam ne moom lañu ñu ànd ak ñu ñëwoon tey seet si ku tedd ki sëriñ Mountakha Mbacké xalif général de murit wax dëgg yàlla yàlla rek moo tax ñuy wax mbégte mu rëy boo xam ne xamuñ fan la toll lañu fi jógee tey lu tax mu wax loolu mooy dañ fee ñëw ngir am loo xam ne moom lañu bëgg waxtaan ak moom jëm ci nekkin bi nga xam ne mooy suñu mbokk Ousmane Sonko ak ñu nekk ci kaso bi yëpp waane biñ ñëwee di waxtaan ak sëriñ bi li tax kilifa neex mu xamal ñu ne ñun lii nga xam ne moom lañuy ñuy dox si moom jiit nañu ci ba pare firndeel ñu ni nga xam ne moom lañu ci jiitoo kon mooy wane ne moom tànk yi nga xam ne moom la doon taxaw ci Sénégal boobu ba léegi muy tànku jàmm ci la nekk ba léegi ngir yàlla ak yonent bi ak Cheikhul Khadim def na ko ñu gis diggante président Macky sàll ak président lay Wade def na ko ñu gis ci weeru mars deux mille vingt et bi nga xam ne réew maa ngi tàkk ñëpp tiit mu yëkkati kàddoom yëpp set loolu nga xam ne moo doon ay tànkam jàmm jàmm ci Sénégal ak ci réew mi. bañ ñëwee tey loolu la ñu wanal ne ma nga ca ba léegi kon amal nañ ko cant amal nañ ko ngërëm dalal na suñu xol dalal na suñu xel dalal na suñu fit waane wax ji yemewu ko foofu li baax li nga xam ne doon na ko def di ko def tey defaat ko tey yemale ko foofu lu tax ma wax loolu ndaxte li nga xam ne daf ñoo taxoon a jóg tam jiitu ci daf cee dugalaat loxoom ba mu gën a sori mooy daf ñoo jox yóbbante bu rëy boo xam ne ay wax la mais itam loo xam ne lii jëf la yónni ñu ci ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ne buñ demee nañ ko wax ne wax ji sa baay sa sëriñ sa mbokk gi nga xam ne waxal na këru diine lislaam yépp ci senegal moo la koy yóbbantee muy wax ju tedd muy wax ju sell muy wax ju barkel ba pare nag ne la lii moom moo ko teg sa loxo vraiment ba ñuy ñëw yaakaaruñu woon sax ne dañ fa am lu toll noonu mais mbaaxu sëriñ bi moo tax loolu ma leen wax lépp muy rëy mu def ko tey ci réew mi defal ko ngir jàmm am moo tax ñu ne am nañ mbégte mu rëy ba pare nag ñuy wax nag ne ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange Ousmane Sonko te boobu léegi mënuñ koo gis ñun ñi nga xam ne ñoo ay mbokkam ànd ak moom te dañoo yore kàddu sëriñ bi yore yóbbantu sëriñ bi na ñu ubbil bunt yi ngir ñu dem gis suñu mbokk suñu xarit Ousmane Sonko parce que buñ demee dañ naan ko lii sëriñ bi moo ko wax te sëriñ bi moo ko teg sa loxo loolu daal muy message boo xam ne bëggoon nañ koo def kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk kaaraange réew mi tiim son ko ne ñun message dong lañu sëriñ bee ñu yónni kon nag ala kulli haal il faut que ñu gis ko waxanteeg moom li nga xam ne moom la ñu sëriñ bi yónni buñ ca paree nag parce que kilifa bu waxee ba pare ay waxam kenn du ko sànni ci mbedd la ñu waxante ak moom. la ñu jëflante ak moom la mu teg suñu loxo pour ñu yóbbal ko son ko ba ñu dem bu ñu demee ba ca ndey mbilli ga nga xam ne moom la ko sëriñ bi jagleel ba ñu wax ak moom ba pare danañ waxtaan ak yéen presse bi wax leen lan la ñu sëriñ